complexe imam ali di rajo Mozdahir FM 93 point 2 waaye ci Kolda itam ci 93 point 8 ñu leen di nuyu di leen ziar waaye di ndokkeel itam teg lépp nag ci loxol Maulana Chérif Mohamed Ali Haydara mu teg ko ci loxoy maamam teg ko ci loxoy askan bi yëpp ci bis bu tedd bi nga xam ni mooy fàttaliku juddu jigéen di gën a tedd yàlla masa bind muy fatimatu zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha ndax ñu leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye di wéy itam comme ni ko dalee woon rek ci suñu dajee yi wees xam ne tey mooy juróom-benneel bi di waxtaan ci ku kooku di sangu jigéenu aduna di fatimatu zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha ci sunu dajee bi wees muy juróomeelu dajee doon nañu waxtaan ci fatima comme ku am borom kër fatima comme yaay fatima comme doom ay yaayu baayam itam tey nag ñu bëgg ñëw ci yeneen yoo xam ne ganaaw bu ñu ko tàmbale woon ci suñu liggéey bi ñëw bi wa bi wees mu la alxawfu min allahi subhanahu wa ragal suñu borom subhanahu wa taala taw te leeraloon nañ ci dara ñu bëgg continuer rek ci melokaan yooyu nga xam ne mooy melokaanu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi di melukaan gu mat ci lépp lu sunu borom namm ci jaam yi fa mu bëgg nit ñi yem foofa lañ tàmbalee ñoom te loolu dafa feeñ léppam ci Fatimatu Zahra salaamullahi alayha tax bi ñu njëkk a tudd tey mooy dëpp ak dogal borom bi alxawfu min ahwaali yawm alqiyaama Zahra salaamullahi alayha xamoon na bu leer bu wér ne adduna bi dañ ci jaar rek moo tax ak yóbbal lañ fi wute waaye lu ñuy dëxëñ lu ñuy rënk lu ñuy denc nekk waru waru fi ndax ab jaaruwaay la rek ma ni ko na ko misaalee rek kuy dox ba sonn jaar ci ak ker di noppaleku ba fa tabaxee néeg sonal sa bopp lay doon moo tax dafa bawoon xel bu baax a baax a baax yowmal qiyaam ak yi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala wanee ne foofa noonu lay mel waaye sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi moom itam leeral ko suñu borom di wax ci benn aaya لكم مثال أن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ثم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد métti métti ba nga xam ne doom sax du faale këpp yaay ja yaay sax du faale doom ja muy nampal ku nekk ngi sa bopp doy na la ngay tërëf tërëfi mais ni ku àndul sago fekk métti yu rek la tiitaange la loolu nag Zahra ul Kubra salaamullahi alayha da ko ba woon xel moo tax benn bis mus na laay way juróom ba sang-sang yi muhammadin sallallahu wa ali ci mbiram yowmal qiyam mu ko yow suma way jur maa ngi lay laaj yow mal xiyaam nun la ñu di mel mu ko Fatima kenn ku nekk nekk ci sa mbiram bopp mu doy la sëkk kenn du xool mbiram kese kese des bàyyi mbiram dana ko doy ba walis doom doom mbiram dana ko doy walis yaay kenn ku nekk yaay ci kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi zahraul kubra salawatullahi wa salaamuhu alayha fatima laaj ko ne ko waaw ndax bu ñuy génn ci suñuy xabru suñu borom subhanahu wa taala dañuy dékkal ndax danañu am lu ñu làmboo lu ñu sol lu nëbb suñuy cër sangit muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ko déeréet nee jëmm yi de noonu rek la ñuy ñëwee waaye jullit yi nag suñu borom subhanahu wa taala yàlla dina leen suturaal nëbbal leen seeni awra yéeféer yëpp mu bàyyi leen noonu seen yëpp di feeñ Fatima Zahra salaamullahi alayha na waaw ñoom lan mooy di moo leen di ñoom jullit yooyu lan mooy muur seeni awra mu ne ko génne leer goo xam ne day jolli goo xamante ni moom mooy nëbb seeni cër yaakaar naa naqaru la misaal jamono jii tey léeg-léeg nga gis ay nit yu ñuy génnee ci télévision jël seen kanam ya am luñ ko baaree loo xam ne loolu moo tax ba doo gis kanam ya doola doo ko leen xam loolu nag waaye yow mal xiyaam ñi nga xam ne ay jullit lañu suñu borom subhanahu wa taala noonu lay def wërale leen ak leer goo xam ne kenn du ko mën a leen mën a xool kenn du mën a gis seen awra mukk bu dee yéeféere nag mu daal di leen bàyyi bon moom lépp yowmal qiyaam rek moom zahrawul kubra salaamullahi alayha kalam da ko doon daj lu am solo la waaw tax mu jàjj ñi ba yu ñu bare ñu nekkoon ñi ko wala lu ñu dugguloon buñ ca dugg beneen bunt bi nga xam ne fokk ñu tudd ko ci Zahra salaamullahi alayha mooy yitti yittewoo ju mu yittewoo woon ñaan waxoon nañ ko ci sunu dajee yi wees imaam mun a alxasanul mujtaba di doom ja di taaw di taawam la nettali ci al isaar bu méttee nga joxe ko ca toog fatimatu zahra salaamullahi alayha doon ñaanal dëkkandoo yi di ñaanal jullit yi gée ba set tuddul kenn mu ne ko waaw yow sama way jur dégg naa lañ ngay ñaanal ku nekk tuddoo sa bopp tuddoo sa njaboot mu ne ko waaw aljaaru qabla daar dëkkandoo yi njëkk balaa ngay ñëw ci sa bopp lu la fonke woon ñaan salaamullahi alayha moom comme ni ko sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi waxee addu'a muxul ibada ñaan mooy yuurub jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala naan qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum bu ngeen doonul ñaan yàlla du leen faale waaye sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali nee na silaaxul mu'min ñaan moom mooy nga nayal jullit ndax ñaan mooy tax nit ki yëgal boppam ni man maa ngi nii ni kotte ne jon na dara aw ma ko bay kotoo tooti waaye yëg itam ni sunu borom subhanahu wa taala moo am ba géejal ba manqué wu dara ñàkku dara boobu nangu nag boobu reconnaissance boobu itiraaf mooy njomboxtal mooy sommité jaamu sunu borom subhanahu wa taala man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu boo xamee li nga doon sikkin la xam kan mooy sa borom faqirun miskinun mu dara indi woo dara ndax boo koy def sax léeg-léeg da ngay loxo ca wala ko ne maa ngi nii de dara nekku ci de soo ci defut du ci ne loolu moo tax Saara salaamullahi alayha yitte woon ko lool boo demee am na ay ñaan yu bare bare yoo xam ne ñu ngi koy askanale ci Fatimatu Zahra waaw saxiifa euh, Fatimiya mushafu Fatim ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yépp boo delluwaatee ci njabootu ahlul bayti salaamullahi alayhim dañ la koy wax yoo xam ne Fatima salaamullahi alayha daf ko yitee woon te bind nañ ko teg sax bare nañ lool ay déyaaleeg sunu borom ay ñaan ay ñaanal nit ay ñaan yi xaas ñaan yoo xam ne dañoo wax ne boo ko defee ci waxtu nangam ci bis nangam ci weer nangam ci nangam ak nangam yooyu yëpp boo demee Zahra ul Kubra salawatullahi wa salaamu alayha da ko feesal moo doon wax moom Fatimatu Zahra salaamullahi alayha mu ne dégg naa sama way di sang-sang muhammadin sallallahu alayhi mu ne bisu ajjuma am na ci waxtu woo xam ne ab jullit du seetlu ba di ko ba xel ba bu waxtu yu jógee mu jóg ñaan suñu borom subhanahu wa taala lu dul suñu borom da koy may la mu ñaan mu ne ba mu waxee loolu moom sang-sang yi muhammadin sallallahu lu baax xam nga yéeneel ko nit mu jokk jokkali ko wala mu jotal ko mu jaaree ci njabootam ba yegg si ci ñin mu ne ko yaa rasulallah ayu saatin hiya ban ban waxtu la woo waxtu mu ne ko moom sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ne ko mooy bu ñu demee ba jant bi so ba nga seen ko mu xonq génn gu dugg des des ci biti ci bisab ajjuma loo mën a ñaan ñaan ko salawatullahi wa salaamuhu alayha ndax mu ne góor nga amee ak gone góor gu ak gone gu fa nekk ko jàppale da ko yow daal ajjuma bu jotati rek demal ci tund wala nga daw taxaw di ma xool boo gisee jant bi da dugg ba gën wàllu nga dugg rek yëgal ma ko man ma ñaan samay ñaan loolu pour ñen la pour wan la rek zahra ul kubra salawatullahi wa salaamu alayha ni mu fonk ñaan da daan taxaw di ñaan ba tànk yi di néew yi comme ni ko way ba doon defee comme ni ko amirul muminin salawatullahi waaye comme ni ko njabootam gi di defee daan ñaan di ñaanal nit ñi nag waaw ñaanal nit ñi ñaanal tax boo demee sang-sang yi muhammadin ali day wax ne mu ne kuy ñaan jiital ci ñeent fukki nit jor di ci teg sa bopp sunu borom subhanahu wa taala nangu sa ñaan moo tax loolu itam dafa am solo yéene nit ñi jàmm bëggal leen yiw la nga ca man nga defal leen ko la nga ca manut nga ñaan ko sunu borom subhanahu wa taala loolu mooy islam loolu itam nekk lu xam ne lu jar a xel la moo tax sang bi Fatimatu Zahra salaamullahi alayha noonu la daan def bu ñu demee ci beneen tombo moom Zahra salaamullahi alayha dañ koy fekk ci biir këram waxoon nañ ko kem ëppi épouse ni mu fonki woon imam ali alayhi salaam nga xam ne bu imam jógee ko woon xam nañ ne moo doon jàmbaariw jàmbaari moom amirul muminin ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi fekk ko ko bëggee xam fekk ko la badar aliyun badara foo ko déggee rek badar yu la soixante dix yéeféer lañ fa rey trente six yi moo leen rey ñi ca des ñu gën a bare moo leen tàmbali ñi ca des ñëw yëgale leen waaye fekk ko xaybar fekk ko xandax fekk ko hunayna moom amirul muminin salawatullahi wa salaamuhu alayhi yonent bi xeex la yu xam ne da koo fekkee ci ay guerre vingt sept wala vingt huit wala vingt neuf solo ñi nga xam ne ñoo ko wax benn la ci imam ali alayhi salaam masa masa masa tarbi te bu masa dem mooy général de guerre ba waaye lu mu fa daj bu ñëwee Zahra Kubra salaamullahi alayha toppatoo ko tàngal ndox ma fompal ko jaasi fompal ko yére ya raxasal ko tànk ya lu nekk daj na ko ci moom salawatullahi wa salaamuhu alayha royukaay la moo tax noonu la meloon liggéeyub kër gi daawu ko bàyyee kenn waxoon nañ ko ci sunu dajee bi jàppale katam ba muy sët nga xam ne daal séddoo nag moom ne ko tey yaay aaye liggéey bi ëllëg maa koy aaye ne bu la neexoon fee ngay taxaw di tàllal sa sa baaraam wala sab loxo waaye Zahra ul Kubra salawatullahi wa salaamu alayha noonu moo tax da daan lool ba loxo yi di nacc da daan ba yëre yi tilim da daan taal ba kanam gi di di di di di ñiis ndég coono waaye jaamu yàlla goo ko ëppaloon doole loolu nga xam ne moom moo ci nekk ci coono te xam na ko ndax xam na ne sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi di way juróom moo wax ne jihaadul mar'ati husnu tabaul boo ko mënoon a firi da wax ne rek jihaadu jigéen mooy mokk pooj ci waxin moo tax Zahra salaamullahi alayha lu ne dañ na ko ci loolu ci kër ga xana mu tey lu nekk rek dañ na ko moom Zahra salaamullahi alayha mi nga xam ne yonent bi nag moo ñu ko royloo maanaam madinatul ilmi wa aliyun baabuha waaye déet fatima bidaatun minni ni ñu war a royee yonent bi noonu ko war a royee te balaa ko ndax nit balaa nga koy royee ko koo xamul doo wala koo nawul doo ko roy tax lépp mu ma toon salawatullahi wa salaamuhu alayha lu nekk dañ ko te mënoon na ko caa ñàkk a fekk da daan liggéey ba sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali yërëm ko ñëwentel li nga xam ne moom lay def waxoon nañ ko ci suñu dajee bi wees bi sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ñëw fekk ko mu ngi dëbb moom ak amirul muminin ali ibn abi talibin salawatullahi wa salaamuhu alayhi nga xam ne keroog bon ñett nga xam ne ba yàlla bindee suñu maam aadama wala sax ba mu ko bindagul nag ba yowmal qiyaam ba àjjana ñoo gën ci ku yàlla mës a bind muy seen sang muhammadin sallallahu alayhi wa ali di amirul muminin ali ibn abi talibin salawatullahi wa salaamuhu alayhi di fatimatu zahra bidaatu rasul di sayyidatu nisaa il alamin ñi toog ñoom ñett dañuy taxaw ñu nekk boog ci néeg bi néeg ba ëmb xam ne néeg ëmbut lu lu lu loolu yonent bi ne ko yow Aliyu salaamullahi alayhi kan moo ci gën a sonn ci yéen ñaar ci njëriñ màndi yërmande ju mu ne ko Fatima mu ne ko Fatima jógal Fatima jóg ñoom ñaar ñi ñëw di jàppale Fatima ci ndëbb bi loolu am solo la am solo la yërmande waxtaan dimbalante loolu dafa solo ay kii fële rek kii faa lu ko lu gars yi da lu dut farata di ko wax te buuru bari di yàqu itam loolu koy indi dafa ñaar ñu nekk nag dañuy dimbalante dañuy jàppalante dañuy wax wata waxtaan di laante biir comme ni nga xam ne ni la ko Zahra salaamullahi alayha ak amirul muminin salawatullahi wa salaamu alayhi ci supervision sang-sang yi Muhammadin mu tax bu liggéey bi sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi gis ni mu mel mu ne ko ah waaye yow sama mu ne ko yaa ngi liggéey de ak coono adduna bi waaye lan koy jëndee mooy bànneexu àllaaxira bu àllaaxira boo xam ne du jeex moom mu xam ñaxtuwut jooytuwut waaye daf ko ne ah yow ya rasulallah alhamdulillahi ala niamayi ne maa ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci xéwal yu bare yi nga xam ne moom la jox waaye di ko sant itam ci ba mbaaxam yi yi nga xamante ne moom la ñu te jox ñun tam suñu borom subhanahu wa taala wàccee ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yàlla dina la jox ba na ko kawsar buñ ko ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda suñu borom subhanahu wa taala dina la jox ba nga ne gongo ba nga ne ok ba nga ne baax na jox na ko ko tey ndax ku dut moom tey mën naa am bu ñu ne diw ca moom la bokk sikk mu am sikk walla ñu ne koo kan la waaye kii shérif la walla kii sayid la amul sikk ne da xam ne sëtu Fatimatu Zahra la moo tax suñu borom subhanahu wa taala ne jox nga ne jañ malgré comme ni ñu ko waxee woon ci suñu daje yi wees coono bu dul jeex rey dàq génneem réew tëj Harun Rashid daan na ko def ci nguuru dawla abbasiya dugal leen ci néeg ba ñu kii mu mu mu mu mu mu mu kuule néeg ba bàyyi leen fa ñoom ñëpp ba ñu faatu lu nekk dañ nañ waaye naka mu tey ak ñu bari bëggoon tey ku topp mbedd yi ndakaaru yi da laajte kan mooy sëtëb Harun Rashid la nga def wax ko boog ci ci ci eh, internet bi ku la ci wax lu wóor du bëri wala soo fa yu'tika rabbuka fatarda ba tax léegi-léegi itam di xool suba da koy jar waaw adduna bii amirul muminin ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi da ko doon wax yaa man bi dun yastaxal wa garrahu tulul amal almawtiyaati baxtatan wal qabru sunduqul amal am na yoo xam ne jaru ko fi fa maa qadaa irabun illa ala axira bi yoo xam ne du fi yàgg te day bettaate wala yu bare bare jaru ko fatimatu zahra nag salawatullahi wasalaamu alayha mi nga xam ne mooy lamp bi nga xam ne dañ caa war a niitu ndax mooy bidaatu rasul noonu la meloon ci jaamu yàlla aw ci badar néeg liggéeyu kër ga la yàlla sunu borom subhanahu wa taala joxoon def misaal pour ñun ñëpp ñi xam nan la doon dundee ak borom këram terewul nag boo demee yàqkat yi lu nekk wax nañ ko ci lu nekk bind nañ ko waa daa xam lu lu ak lu suba moo tax yenn yi mënu ci waaye lu nekk yàq nañ ko ci daram bëgg ali bëggu doon ali nag Alioune dafa ñàkkoon nag mais ni moom di addunaa ko ñor lu nekk wax nañ ko waaye wax rek sos rek sos rek beneen point boo xam ne jar naay baqel itam ci dundu Fatimatu Zahra salaamullahi alayha mooy baqel gi mu doon baqel ñi fi jógee ko di leen ziyaara ji waaye itam di ci jëlee ay waara ay ay ay waaraate wala ay jajj yoo xam ne dalay fàttali dee te loolu bari na yoo xam ne sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wax nañu ko pour ñi ziyaara ji bàmmeel yi ndég muy ñiy fàttali ëllëg ba adduna bii du ñu nax moo tax amirul muminin ali ibn abi talibin salawatullahi wasalaamu alayhi mii borom këram daan wax naan zuru mawtaakum fa innahum yafraxuuna bi ziyaaratikum wal yatlub ahadukum xaajatahu inda xabri abihi wa inda xabri ummihi bima yad'u lahuma mais na ngeen di ziyaare way dawlu yi ndax boo leen ziyaare dañuy bég ci li nga leen ziyaare ji noonu li nga leen seeti nee na nag kenn ku fa àgg ci ñoom boo amee aajo ci sa xab bu dem boo demee ci sa xab bu bàyyi wala sa wu yaay boo amee aajo wax ko fa ndax ñaan yi nga leen a ñaanal moo tax ba loo wax ñoom itam ñi ñaanal la ne la amin te seen ñaan du dellu gannaaw ba tax ziyaara ji xabru naag ñi koy dàq nag xëy na seen xam-xam foofu la toll wala seen ëdduna rombut seeni suufu tànk ay ëpp naa ñàkkaa di ziyaare ji xabru yi way jur yi mbokk yi nit ñu baax yi moo tax imaamuna Jaafar ibnu Muhammad as-Saadiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi daan wax naan nee na Zahraul Kubra Fatima bint rasulullahi sallallahu alayhi wa ali nee na da daan dem ci xabru yi rawatina nag subaak samedi bu nekk da daan dem ci xabru Hamza di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yokk ko yërmande di jéggulu ko di ko jéggulul moom Zahra salaamullahi alayha danaan dem ci xabru shuhadaa yi ñi nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla subhanahu wa taala ajjuma ju nekk chaque semaine mu dem ca ñaari yoon muy ajjuma di altine di alxames di leen ñaan dafa ñaan moom Zahraawul Kubra salawatullahi wa salaamuhu da ko boowoon xel boo demee ci beneen point boo xam ne moom itam jar naay baqel ci dundu Fatimatu Zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha mooy li ñuy tuddee al iffa mooy li ñuy tuddee chasteté mooy fegu mooy garder boppam ba du ko exposer loolu misaal la ci jëlee nañ ci sëtam ba di imam Muusa ibn Jaxfar al Kaazim di doomu imam Jaxfaru Saadiq salaamullahi alayhim mu jëlee ci ay baayam imam Baqir imam Zeynul Abidin imam Huseynu imam Hasan imam Ali ak Fatimatu Zahra imam jëlee ci yonent bi sang bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu jëlee ci boromam mu ne Fatimatu Zahra salaamullahi alayha daan wax Ali naan ko may ma nee na nee na nee na eh, Fatimatu Zahra salaamullaahi benn gumba dafa mës ñëw mu ñaan ko pour mu deferu mu ne bi mu de waxee loolu sang bi di ko testé naan ko waaw kii moom gisul di mu ko waaw bu gisul man maa koy gis te am na lu koy xeeñ bàyyi ma rek ma daal di fatu xoolal ma loolu rek ak gumbo waxut kuy gis de dag koy gis moom suñu yëpp lañ ko génneel xam nga bi muy ñëw mu ne ko may ma rek ma daal di fatu ne ko kii gisul gumbo la ne ko bu gisul man maa koy gis te am na lu koy xeeñ rek waaw mais waxee loolu sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi gees ne ko ashhadu annaka bidaatan minni seede naa ne yow yaay man man maay yow gën wàlla nga ci man mooy yow man man maay yow moo tax moom itam ci wàllu woowu lu ne feeñal na ko ci bi jaroon sunu borom subhanahu wa taala naan ko wala yubdiina zinatahunna illaa li bu'ulatihinna aw abaa'ihinna ba aaya ba jeex du ko jar ndax moom ci la ko fekk moom Zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha mu ne imaamuna amirul muminin ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi imaam Jaafar Muhammad ibnu Muhammad mooy nettali jëlee ci ay baayam mu ne jëlee nañ ci imam ali alayhi salaam mu ne laaj nañu sang-sang yi muhammadin sallallahu ali ne ko jigéen nu muy mel kan mooy jigéen mu ne ko jigéen léppam awra la mu ne ko fan lay gën a jigee boroomam mu ne bu toogee këram bu toogee këram bu dee loolu itam nekk loo xam ne lu jar a ba xel Fatima téye boppam ba yàlla xewalee ko li nga xam ne wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbi waaye wala fi xabusa ah, laa yaxruju illa nakidan ku mel Fatima li jógee ci moom loolu rekk ci mën a jógee ndax moom la yàlla suñu borom subhanahu wa taala préparé woon pour loolu mu nekk koo xam ne misaal la ca ci mbaax ci fegu ci sutural boppam ci bañ a boppam loolu moo tax suñu borom subhanahu wa taala comme ni ko borom xam-xam yi di waxee du def ci ndab lu tilim dara nag mën na caa sotteeku ca ndab lu tilim la waaye suñu borom moom buy def du ko def mukk ci ndab lu tilim la moo tax Sahara daa setoon wécc ku mel ni moom nga xam ne bu la neexee nga taxaw ba bàkku ndamu ne maay doomu yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi ku mel ni moom nga xam ne bu ko neexee mu taxaw bàkku damay doomi amirul mu'min ma may borom euh, soxna si amirul mu'minin salaamullahi alayhi mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne mooy seen kilifa innama waliyukum allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un koo xam ne bu ko neexee mu taxaw ni sama borom kër mooy ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne moo wax ne aliyun ma alxaq wal xaq ma ali aliyun moog dëgg duñu tàqale ko ba mukk fu ñu taxaw ñoom ñaar ngay gis wala benn la ñuy nekk ci wàllu xam-xam kenn melut ni moom bu ko neexoon mu bàkkoo ko ndax ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha ana madinatul xikmati wa aliyun baabuha may dëkku xam-xam may dëkku sagesse aliyun mooy bunt ba bu ko neexoon mu bàkkoo ko ñi nga xam ne ñaay doomam yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wax ne asan ak useynu sayida shababi ahlil ay tere woon dafa téye boppam dafa jàppoon boppam dafa ñoŋoloon boppam ba nga xamante ni du gis góor du gis ci du exposé wu mukk ba ñu ne wax mu ngi lawe yar ca doom ya nag rek zeynabul kubra salawatullahi wa alayha mu def moom itam beneen dikko boo xam ne bu ñu war a nettali la ci Zahra salaamullahi alayha waaye bu ñu war a roy la itam muy kersa waaw moom ñun soxla nañ ko lool te suñu jamono jii kersa soxla nañ ko fi ndax kersa kat mu ngi bokk ci màndargaay gëm yàlla yi mu ngi bokk ci jukko yu rafet yi makaarimul axlaax mu ngi bokk ci jikko yu taaro yi nga xam ne dafa jaadu kenn ku nekk ci ñun nga jikko woo mooy am kersa am looy rus am looy jombo loolu nag Zahra salaamullahi alayha da loolu kat moom la yenent dem lañ jëlee ci ay doomam ci ay sëtam moom zahraawul kubra bokk na ci ñooñu abi abdillahi imaamuna jafar ibnu muhammad as-sadiq salaamullahi alayhi muy wax naan alxayaau min al iman wal fi l janna salaamullahi alayhim mu ne ngëm kersa mu ngi bokk ci ngëm yàlla wala boog mooy ngëm yàlla te yàlla moom fa muy jëmee nit ki ba tax loolu nekk luy xamee lu jar a baxel la lu jar a baxel la loolu moo tax ba nga xam ne Zahra al Kubra salaamatullahi wa salaamullahi alayha mi nga xam ne moom dafa jëg jëmmawoon te jassadatil iman bi kulli maani fi Zahra salaamullahi alayha dafa incarné woon l'essence même bu gëm suñu borom subhanahu wa taala moom la woon moo doon gëm yàlla moom ci boppam duwut daay gëm yàlla gëm yàlla da koo fekk waaye gëm yàlla dafa fekk ne moom mooy gëm yàlla sunu borom subhanahu wa taala ndax wax naa ko léegi lépp lu sunu borom digle lu nekk la ca njëlbeen la ba la ca fin ba mu ngi nekk ci sangu-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jaar ci njabootam googu di fatimatu sahara di imam ali di fatimatu sahara ak njaboot ci jógee ci moom muy al aimatul masumun salawatullahi wa salaamuhu alayhim moo tax Zahra salaamullahi alayha noonu la meloon bëri kersa lool loolu tey nga ne du xippi xool demut dikkut expression yooyu ñuy faral di wax loolu daa feesoon dell ci Zahra moo tax ñu ne Fatima salawatullahi wa salaamuhu alayha benn bis dafa laaj ci sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi comme ni ñu ci sunu ci point ba ñu romb ndax moom kersa gi fii kenn du ko gis du nekk mukk loo xamante ne dana exposé ba nga booba war a am soupçon boo war am ne Zahra nangam ak nangam wala nga gis loo ne waroo koo gis waaye loolu yëmali ko woon addina même àllaaxira sax da ko doon daj ko doon def problème ba ñu wax comme dañoo wax ne àllaaxira day nit ñi dootuñu sol yére loolu moom la ko doon def problème bu rëy rëy rëy benn bis ma ko sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ah am moom dañuy wax ne kenn du fa sol yére sang bi ne ko salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala ahli baytihi tayyibin tahirin ne ko waaw waaw yow sama doom mu ne ko ba man sax damay du ma sol dara ah xoolal ma loolu rek xoolal ma loolu nag fi mu ne moom dañuy sumeeku ñun moom fi mu ne dañuy sumeeku waxuñu àllaaxira waaye adduna bii sax nga xam ne dañuy am lu bare bare bare bare lu nu mën a sol ñun léegi dañuy sumeeku nag moom xelam daa romboon na adduna bi xel dañu ko li nga xam ne moo ko moom waaye la nga xam ne kay suñu borom subhanahu wa taala moo ko définir ne nii lay mel loolu moo ko jaaxaloon nag nan la fa nan lay nekkee nga xam ne man damay noonu laa demel du ma yóbbuwaale yére mu ne ko waaw waaw doo yóbbuwaale yére waaye nag kenn du tal kenn ku nekk sa bopp wa annahu laa yaltafitu fii ahadun ila ahadin kenn du xool kenn kenn du nemmeeku kenn kenn du yëg kenn ñëpp buñ ci sa kanam itam doo leen gis ndax sa mbiram bopp doy na la li kulli imriin minhum yawma idin sha'nun yughnihi mu ne mu ne ah, mu ne ko man daal xoolal rek xoolal ma lool rek mu ne ko man damay toog bon comme noonu la adduna fii laa koy tàmbale alaxira fii laa koy tàmbale man yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ne ko jibril wàcc na ci man mu ne waxal ma yow muhammad sallallahu alayhi wa ali waxal ma fatima nuyul ma fatima nga ne ko am na kersa ci sunu borom subhanahu wa taala sunu borom moom itam am na kersa ci nee na yowmal qiyaam dana ko muuree ay leer yoo xamante ne dana tax ba kenn du ko gis moom zahraawul kubra mboolem jullit yi suñu borom da leen di liiree muur ci seen awra ak ci seen loo xamante ne war na feeñ fii mu muur leen fa lu xamante ne ci leer kenn du leen gis même bu dee ku nekk sax sa bopp doy na la waaye zahraul kubra moom salaamullahi alayha léppam leer day nekk moo tax bu ñu dellu tuwaatee gannaaw wala boog ñun bay mën ñu jéem a tënk dañu wax ne bokk na ci jullit yi li leen rëcc ay njëriñ mooy sang-sang yi muhammadin sallallahu mi nga xam ne moom la yàlla defer ba ina wane wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko toppee amul sikk ne da ngeen jaar ci fu dëppoog fi seen njëriñel adduna ak alaxira nekk ñi dem caricature ko bind ci moom ay mbir yoo xam ne yellut jekkut rafet itam ci personnalité bu gën a bu moyen waxuma laak nag ku toll ni sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi waaye itam njabootam gii nga xam ne yàllaa leen tànnal boppam waxoon nañ ko du privilège responsabilité la bu mag a mag a mag ci ñoom rawatina ci ñun ndax yàlla bu ñu indi ci adduna bii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ñu tey lañ fi nekk ëllëg duñ fi ne yàlla dañu fi bàyyi rek ci ab ab diir lu nekk mu jox ñu ko jox ñu xel bindal ñu dara bind ñu alquran nañu xool leen fële bu leen xool fële boole ku ñu ay nit yoo xam ne da leen defar ba nañu nañu mel ñun kenn ku nekk noonu lay bëgg mel te doo ci yegg dara manqué wu leen fépp matale nañ fa ci jikko yi ci xam-xam ba ci doxalin wa ci jëflante ba ci lépp ni ñu def sang bi dem caricature ko ba kenn mënu koy gisati am na ci loo xam ne kuñ ko waxoon sa bàyyi nga gàddu yet kuñ ko waxoon sa sëriñ nga reyante noonu itam la ñuy def njabootam ga Fatimatu Zahra mi salaamullahi alayha loolu lañ ko nëbbee ba nga xamante ne li nit ñi waroon a xam ci sang boobu muy Fatima salawatullahi wa salaamuhu alayha man ngay wax ne daanaka xamuñ ci dara xoolal ma loolu kii xam ne comme ni nga ko waxee nii ci suñu dajee yi wees ak ci ba dajee tey bi rek da koo feesaloon da koo matee woon ci jikko ja ci jëflante ba ca kër ga te fonk sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ci ca jaamu yàlla ga ca ñaan ga ca ñaanal jullit ya ca baqel ga muy baqel ñi nga xam ne ñooy way dawlu ya ak ak ak loolu yëpp li gën a bari ci jullit yi xamuñu ko ndax dañ koo nëbb dañ koo nëbb ba kenn mënu koo gis te pourtant sunug moomeef la nag moo tax ma ni bokk yi ko boroom xam-xam yi di waxee dafa jar nag gi yi delluwaat gannaaw seetaat sunu bopp xalaataat seetaat sunu diine ji am nag li ñu tuddee courage intellectuel njàmbaar gu toll ni li nga xam ne dëppoowut ak li nga xam ne moom la alquran wax ci sunu sangit muhammadin sallallahu alayhi wa ali li nga xam ne wax na ko ci sunu ci njabootam googu nga xam ne moom la yàlla defar ba mu ne jekk mu indi ñu ko lépp ñu daal di ko nëbb ay mbir yoo xamante ne ña ko defoon seen ab njëriñ lañ ci doon séentu même bu dee lor lañ cay am ñu ñemee taxaw nag la ca bokk ñu dindi ko la ca bokk te ñu dindi ko ci ñu dugalaat ko pour ñu jaar yoon wi nga xamante ne yoon woowu bu ñu ko jaaree amul sikk ne danañu am tiraanga ci adduna waaye dinañu defee àllaaxira incha allah bu dëppoo ak dogalam borom bi fii ci rajo Mozdahir FM 93 point 2 di kaddu njabootu yonent bi di ko jubee ci complexe imam Ali alayhi salaam ci Sac Mbao ak ci Sahara FM 93 point 8 ci kaddu njabootu yonent bi ci Kolda ak li ko wër danañu dellu siwaat ci buntu boobu ci xam-xam ba danañu dellu siwaat ci wa ñaan ya Mushaf Fatima bi nga xam ne lu nekk wax nañ ko ca ak njabootam googu moom itam incha allahu nañ si dellu si fii ci rajo Moussaïr FM 93 point 2 ci technique bi soxna Khadijatu Diouf Cheikh Tidiane Diawo ak Omar Diawo ci rajo Zahra FM 93 point 8 di kàddu njabootu yenente bi ca Kolda ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye wa aqru alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa taala وبركاته Thank